dondoo kër sama kër euh, kër tendemage Tafa mm. Napoli fa laa jóge ànd ak may Napoli jaar noonu buntu këram rek wax ko affaire bi keroog booy yi Pikine yëpp dañu maa recevoir mais maa naan fi nii booy yi bu combat bi taxoon day lu ñu la xamul Ama Baldé bi ñu fekkee dëju père père Alé Ndiaye en mm. di ko ñaanal yàlla yóbbu ko àjjana mm, bi ñu ko fekkee dëju Baye Alé Ndiaye Ama Baldé dañu waxtaan ba pare journaliste di wax mu leen guy gi mii maa ngi moom dañuy bëraat moom xam na ko. waaw mais parce que xaalis suñu biir la suñu suñu. te da nga koo daan ngeen bërewaat. beneen mu daan la mu am werante moom non boobu kay moom daanu moom. ah mais guy gi arbitre sifflé non arbitre dañ ma pare nga ma ne ko man non di dem di jet Ama Baldé dóor moom Ama Baldé xam daan moom moo jusi ferel moom sama ferel kon jàpp ne coup de sifflet bi la def làmb ji ñett yoon la na boobu moom dafa a leer ah, Ama Baldé guy gi mm-hmm. man cëfar suñu signature day neex suñu làmb day neex am na si ziar bi mm-hmm. waxtaan ak yow ba dem te duñu waxtaan ak yow ci actualité làmb mm-hmm. actuellement làmb fi mu toll nga jàpp ne sooxewul waa làmb maara sooxanu sooxawul mais làmb ku jàpp ni rek làmb mun nañu am leneen lu ëpp Sénégal lu ëpp Sénégal ci làmb mm-hmm. ndax nañ sunu bopp mm-hmm. amul yëngu-yëngu sax bu doon am bu làmboo yu amee affiche mag amee day suul yëngu-yëngu yi mm-hmm. nit tey buy def open presse tey daayira am fii daayira bi nit du fa nekk open presse bi ñi di ñëw parce que réew mi moo toll foofu mujj jamono lañ nekk te ndaw ñi sport bi lañ gën a jox bopp te ndaw ñi léegi ñu ëpp mag ñi ndaw ñi ñu ëpp mag ñi te loolu dafa bëri ci dëkk bi ba loolu booy def sa analyse sax di nga ko xam léegi ñëpp mënuñu am liggéey. Mhm. lamb rek moo la ci mën a dimbali. làmb kenn ku ne bu taxawee di nga am loo ci yëngu pour mën ci suturlu. Mhm. ñi jaay biey ñi jaay gerte caaf ñi defar tiset yi ñi defar ñi jël kaar yi mhm. kenn ku ne di nga am ci loo ci lekk te di nga ci suturlu mhm. kon làmb defe naa lu état bi war a teg loxoom état rek moo mën a defar làmb secteur la bu ñu warul seetaan mu suuf keroog maa ngi ci doon wax mhm. guddi yi bu làmb tolloon fii ñun ñëpp dinañu woo dalal ñu teg ñu ci yoon mais fi nii ah, amuñu ministre sport ministre sport bi taluñu mënuñoo woo dalal ñu Gris Bordeaux moo war a woote conférence de presse boo xam ne nii ñun suñu biir mbër bu mag bu ndaw ñu def ko deux jours képp ku nekk mbër ñu jël loose bi. mais est-ce loolu dina mën a nekk. no bien sûr yu mag yeeg yu dina mën a nekk. non mais conflit bi bari na seen diggante bi. non maanaam ku fa ñëw da ngay yaru ku fa ñëw yaru gi mooy. waaw loolu du affaire du affaire euh, xasante affaire du respet respect respect la nit ki. Mm. ñu jox la parole nga wax jox ñu la parole nga noppi. ba ñu jóge fan rek di xool boobu ñëpp la ñu bu fekkee barki démb lañ leen woo pale gii ngeen am problème mhm. est-ce que mën ngeen daje pour toog waxtaan defar est bien sûr parce que ñooñu ñooñu nga gis tey ñuy VIP yooyu tey nga gis ñu naan ñoo nekk ci kaw mm. ñoo ñooy làmb ñooñu ñooy la bu ñu jógee ci làmb làmb ah mun na am dina saf de mais dina xaaj xaaju saf lay doon quoi mm. ñooñu ñooy làmb même donte man maa ngi ñoom bokkuñu position mm. maa ñoom bokkuñu position parce que ñoom président Macky Sall la ñuy jàppale man jàppale ma président Macky Sall man jeunesse bi laa àndal mboru PDS laa jeex na man je suis naturel man moom dooma naan kii li la gëm ak kii li la gëm joxe na kàddoom joxul kàddoom nit ku ne da nga am foo far ñu ñu mhm. bu baax a baax a baax parce que soxla nañ président Bali bi mais yow ak Mbëri est-ce que actuellement amu leen problème bu fekkee que problème kay waaw parce que bu fekkee président bi muy woote ci yow mhm. lañ jaar dégg naa Mbëri dem yëpp guy yaa leen am nañ problème kay boobu ma leen woo alternat bi mi ngi nekkoon 17 heures te bu ñu jógee ci 17 heures boobu ay 20 heures wala 19 heures. Mhm. palais dañ koy tëj 3 heures moo nekkoon rendez-vous bi. palais amul man la guy geeg nangam ordre la. Mhm. boobu laa ñu mais boobu yëguma ko woon. deuxième bi ci vocal au passage di nuyu waa dekki làmb gi yëpp ci vocal laa ko dégg ci groupe bi. Mhm. Frazier dugal ko ay boori une te man dama mbër bu ñuy woo ci ay vocal. bu Gris Bordeaux jëloon téléphone ko ni ma jëlee sama téléphone woo ko ne ko kat war a nangam nangam ñu waxtaan ma moom 10 minutes mhm. respect boobu ma jox ko mu suma kilifa ci làmb mu mhm. delloo ma ko tamit ñuy waxtaan parce que Gris chaque jour dañuy mba télé sax mhm. ci moom lu ñaaw wax dëgg yàlla muy rakkam Maodo même rakkam Maodo bi ma ko wooyee ne sax dañoo woo xam naa ne Gris dina ko woo ko président bind naa la sa tur dañoo woo trois heures et demi mhm. ba Maodo naa ma sama sëriñ ma ne ko non yow ko yaay sama sëriñ yow moom bàyyil ma ñu waxtaan kon defe naa jox naa la cër ba mu kon boobu la ma waroon woo ma ne ma am nañ conférence de presse arène nationale ci suba gi mhm. loolu tax man dem ma yëg naa ko mais dem ma mais sa problème ak ñoom actuellement lan la parce que yaa ngi naan ñoom Macky la ñuy jàppale ñoom a wóolu dañ leen problème bi problème bi du du problème problème bi mooy bokkuñu fi ñu jëm ñoom président Macky Sall la ñuy jàppale man contrôle ma état mais jàppale mu président Macky Sall ci politique xalaatuma ko àdduna parce que tax wax dëgg yàlla mm. état bi man gisuma sama bopp ci ñoom ci lu ñu def ci làmb ji gisuma sama bopp ci ñoom musuma bëre ba benn nit jël cent franc jox ma ko mm. musuma bëre ba benn jël benn set jox ma ko duñ ma sax lijjanti au contraire dañuy bañ ma daanu ndax bañ ma tudd wala saar kon defe naa ni man wax dëgg yàlla ñoom nañ jaar nii ma jaar nee ku nekk ci état bi ne carrément bi ngay bëri mos naa la jàppale génnal nga def ci ci Twitter xaw ma ci nga nga envoyé nga ne ma kat man maa def nga ne fii duñu ma lijjanti du ma leen lijjanti maara du ma ko def lijjanti yu ma du ma leen lijjanti soo bopp laa neex di soox man ak sama yaay waree saar mm-hmm. ak sama grand frère nas ak ñi ma bokk di jàppale ñëpp ñuy soox ba ñëw état mos ci dugal loxoom man nag ma ñëw ba tey jii état soxla mbëri soxla ma woo ma mm-hmm. ñu ne kat carrément état dañoo soxla ñun dañuy jàppale état ma tourné jàppale état du ma ko def du ma ko def. loolu nga jàpp ne mbëri dem ñoom ñoom loolu weddi wuñ ko dañuy jàppale état dañuy jàppale président Macky Sall ñenn ci ñoom quoi du ñëpp. Mhm. du ñëpp bul généraliser du ñëpp. parce que man ñoom ni jàppale état man tamit noonu laa bañ a jàppale état. parce que état kenn ko contre. mais jàppale gi mooy ñoom dañu ànd ak moom pour jàppale ko ci politique am man ànd ak moom ñoom jàppale ko ci politique am mais contre ma état parce que état yàlla jël ci nguuram jël ko jox ko. Mhm. kon defe naa ni boo ko contrer a ngay sonn. Eh, balaa ñu jeexal dañuy waxtaan tuuti ci actualité réew mi. Mhm. mënta ñàkk mhm. réew mi bari na ay yëngu-yëngu. yaa ngi mhm. koy wax léegi léegi rawatina ci secteur politique bi. Eh, gis nañu tey jii fi jot a jaar rawatina Ousmane sonk tey yaa ngi gis yaa ngi tabaskee sa kër ak yooyu moom këram ma nga ñu bari kade nga gis jeunes yu bari tey mu jaral leen génn. ne ci tali bi xeex ñi seen bakkan ci rot tey guy gi ban gis-gis nga ci am boo amee message booy lancé à travers. la jeunesse mais aussi ci diggante boobu nga xamante ni tàng na trop diggante oppos opposition bi ak pouvoir yi ak Sonko. waaw côté boobu daal li ma ciy wax. ñu mhm. ñaanal yàlla réew mi yàlla def fi ñi ñàkk euh, ñi ñàkk seen seen bakkan ci manifestation yi passé yàlla yóbbale àjjana ko yàlla mënu ko yàlla na ko yàlla def mhm. seen seen waajur yàlla may leen xolu muñ mhm. te xam ni yàlla tuddoon na fii la ñuy ñàkkee seen bakkan euh, te lu mel noonu bañ amaat lu ci njëkk ci réew mi pour jàmm-jàmm mi ngi jógee ci président de la république moom rek moom mënoon a génn wax benn wax benn rek réew mi dal benn benn réew mi dal kon nag duñ mën loolu rek di ko ñaanaat moom suñu kilifa la di ko ñaan wax dëgg yàlla lépp luñ lépp lu mu mën ci jàmm ñëwaat ci réew mi rek mm-hmm. moom mu def ko def ci mooy ndax dalal nit ñi jox leen message boo xam ne dañ xam ni kat kii kat bëgg na jàmm ci réew mi mm-hmm. te bañ ñu ko naan eh, defal lii defal laa defal laa defal laa euh, mun naa jël exemple rek ci affaire yi fi jotoon am mm-hmm. avant affaire bi am da ngay gis kenn ku toog ci plateau di wax bay géer mais bi affaire yi commencé tàkk da ngay dégg kii naan damaa bëgg ga dem Gambie kii naan damay génn réew mi <laughs> kii naan baal ma dem Saalum ndax man xajatuma fi kii naan dañ may rey sama kër koo ci woo journaliste yi koo ci woo nga ne ko waaw ah, diw damaa bëgg def ta plateau dalay saaga dëgg la kon loolu rek exemple la hmm. benn nit laa xam ne nii kooku moom vraiment sa asim te hmm. président bu doon da yokkal salaire mën na ko yokkal muy Pape Malick Ndour moom moo génn ci jour bi di wax di xam nga loolu mooy nit nit bu ànd ak moom ci mu naqari ay ànd moom ci mu naqari bu ànd ci neex hmm. mais wax wax wax wax wax ba dara desul kon président war naa xam ne kat ah, loolu tubaab bi naan il faut rek sauter pour meilleur déwén la war a def parce que il faut il faut reculer pour sauter meilleur déwén parce que ñii ñii taxaw tey affaire tàng rek ñu reculer affaire yi seddaat ñu ñëwaat am na ñoo xam dañuy filmer seen bopp hmm. naan filmé ma dem taal ba billaahi loolu man sa mbëta ba may filmé ma dem taal fay ñëwaat naan fii ku fi taal lu ndaw demaat am ñoom dañuy filmé seen bopp di saaga ay nit na nangam nangam yow fa nit ña nekk nga yor sa poxus bu ndaw. ne fa di wax nekk fa di wax di <laughs> saaga kenn wala sa naan noo kii dafal ndànk rek nangam na pour loolu ngay bëgg a dagg président président xam na lépp. Mm-hmm. nga ni noo président yow man li ma liggéey ci xeex bi naan dossier Adji Mm-hmm. ana ñan ñoo ci doon toog di wax tey. te wóoru leen seen aqulayu taala. Adji Sarr ak Sonko bañ nekkoon xamuñu lan moo fa xew. dëgg la nga ñeme yàlla ñeme yàlla goo xam ne ku ko defoon sa baay. wala mu defoon ko sa mag. du la neex. dëgg bu doon Adji Sarr côté jigéen ku ko defoon sa yaay wala nga defoon bu jigéen. du la neex. Mm-hmm. muy Adji Sarr muy Sonko amul kenn ku la ci wóor nga toog naan nii la ko def nii la ko def. Mm-hmm. nii la ko def mu lay jaral ngay waat mu lay ja ndax nag dërëm buñ lay jox. ndax lan boo defee plateau ba pare nga woo diw na ko dégg nga dégg nga plateau bi dégg nga sawaay li ma ko yàq mm-hmm. ndax benn somme bi lay jox ba soo war a dem ci plateau da war a waxaale sax na xaaral lii lañ may jox lii lañ may jox lii lañ may jox am na ñoo xam dañuy dem ci plateau nga dañ ñii dañuy dañuy wax ay journalistes yu mag dañuy wax nga xam ne ñii lañuy kàcc dañuy kàcc waaye yow dañuy wax ba xam ne ñii li ñuy wax du dëgg du ay kàcc kan lañ parce que kàcc yoo xam ne nit ñi dañ teg seen bët yow dafa mel yow amoo njaboot yow mi wax loolu yow nga nekk journaliste bu mag toog wala nga nekk chroniqueur bu mag wala nga nekk tey ko xam ne ku nit ñi déglu lañ mm-hmm. ngay toog di wax ci dossier boo xam xamoo ci dara fekk woo ko te yàlla wax ci njaaloo xaajul xaajul xaajul ba loolu di daje nga toog di ci wax loolu da xool sa bopp léegi ban ban ban conclusion beneen bi beneen bi beneen bi beneen bi dossier bi tey ñu bëri somel somor lañ waaw billaahi ñu bëri fayatookuñu ñu bëri fayatookuñu mm-hmm. dossier bi dossier bi da ngaa gis ku toog billaahi di wax ci Ousmane Sonko ba ñaq mm-hmm. billaahi wallaahi wa taala Ousmane Sonko ko gën wala li doon def bu yàlla union lu doon def billaahi ñu ni xanaa kii du moom bëri na lu nit doon wax ci Ousmane Sonko bu yàlla union rudo bi rek da yow yow di nga xeeb sa bopp fii kenn ku ne am nga loo xam ne bañ nga ñu xamal la ko bañ nga ñu déggal la ko mais jàpp doomu jàmbur di wax yoo xam ni na leer nag man du ma Ousmane Sonko de mais da laaj actualité ma parce que boo waxee nii dañ jàpp na la wax ñu toppoon di wax di wax di la loolu baaxul. Ah. baaxul ndax rek dama ko benn weccet. ban conclusion nga ci mën a def message boo ciy lancé euh, au Sénégalais. waaw loolu li ma ciy lancé mooy comme li ma la wax rek euh, président de la République na xam ne ndaw jeunesse mooy mooy mooy réew. Mm-hmm. jeunesse mooy état. Mm-hmm. chef de l'état du caaxaan. Mm-hmm. mais jeunesse mooy état. ndaw ñi ñëpp ndaw ñi ñëpp mag ñi te ndaw ñëpp ñu am liggéey. mais na jàppale société yi. société yi jàppale ndaw ñi ndaw ñi liggéey société yi te ñu bàyyi complexe yi ak étra ak nitu étranger yi. Eh, mais bu fekkee bu fekkee tamit wax mi ngi taxaw ndaw yi ci réew mi di ko yàq parce que gis nañ fi ay privé yoo xamante ni jot nañ ko yàq yi ñu taal ko yi ñu toj ko ci hmm. manifestation yi est-ce que tamit ndaw ñoon dinañ neex jàppale non loolu moom seen seen seen tolluwaay la rek parce que dafa am ñoo xam ne wax dëgg yàlla euh, am na xam ne bu ñu fa tolloo moom hmm. yaay xool yi tax ñu yàq rek nga woo leen dalal leen yàq moom sa waay hmm. eh, nguur gi toog gi tey ñoo daaxoon yàq ñëpp nguur gi toog tey ñoo dàqoon yàq ñëpp nguur gi toog tey daan yàq nañ ba àgg pale jàpp ci giri gi te ñuy <laughs> jàpp jàppaguñ ci giri gi nañ waxante dëgg nguur gi tey dem nañ ba pale jàpp ci giri bi mm-hmm. Abdoulaye Wade def rikil ne ñii samay njaboot lañ mm-hmm. ñii àggaguñ foofu nañ waxante dëgg mm-hmm. loolu yàggul yàggul am na loo xam ne man du ma politique mais dama lay wax li nga xam ne man moom laa gis léegi nag yaay xool ba xam li tax muy yàq nga woo leen saafara ko mais réew mi dafa metti nañ jàppale xale yi jàppale jeunesse bi jàppale wàññi bagage yi lépp. jamonoy dambaliyaason ba tey. jamonoy. dambaliyaason ba tey loolu mooy lan. jamonoy Abdou Diouf dambaliyaason ba tey. xol xol dévaluation la bëgg a wax. no non non dévaluation li ma xam naa ko dévaluation yooyu yàgg na boobu boobu. boobu man moo la bëgg a wax waaw jamono waaw voilà jamono boobu doon ba tey xool jamono boobu tey Mara xool ñett ñetti bekk dërëm moo ñett ñetti bekk dërëm moom la doon jar léegi Sokor lu muy jar. booba tey ñun dañuy wàññi chaque jour mi gën a yokk te yàlla mi ngi sutural di la ko jox dëgg la réew mi réew mi yow day gën a métti li cher bari na tey kii boo yoroon tey bi 2000 francs 3000 francs boo demee marché doo ci am jën bu baax lan ngay xaar ci président Macky Sall non président Macky Sall wax dëgg yàlla kuy jàkkaaroo caméra bi hmm. naan président Macky Sall liggéeyul yow moom ñu doon wax ci dossier Adji Sarr bi te dara wóor leen ci di kàcc hmm. yaa ngi ñoom ma yem liggéey na yaa travaillé beaucoup macha allah son excellence président Macky Sall mais dafa am reniement boo xam ne reniement boo war a def reniement lépp lépp reniement bu bees fal jeunesse yoo xam ne xale yoo xam ne nii tey dañuy xam dañuy ñëw wàcc ci askan bi. remaniement quoi. waaw ri voilà yow ñëw rima yow comprendre nga yow man ba mooy xam nga xool jeunesse boo xam ne dañuy wàcc kii ñoo xam ni ku ci mel tey Pamaline Ndour tey. kooku xale la. Mm-hmm. man li muy dafa ko rafetlu même donte. donte maa moom ànduñu li muy def dama ko rafetlu Pape Malick Ndour am na ñu mu jël ñu Papi Vaz xaw ma Papi mooy affaire ñu def tëli yi waaw yooyu yooyu Pape Malick Ndour Pape Malick billaahi Kalador la laa dégg muy wax Kalador neen da ko woo ne ko dama bëgg nga jël ma xale mu jël ko ay boy te man dégg naa ko ay feneen ak feneen kon loolu ñun dañ koy rafetlu ñun jeunesse bi UCG non loolu dañ koy rafetlu Pape Malick Ndour damay rafetlu liggéeyam même donte maa moom ànduñu mm. léegi nag kan moo melaat ku mel noonu Pape Malick Ndour ci wax ma ko wax ma ko ñeneen ñi xam lu ñu mën mm. émission Sonko na dem wuy ji Sonko loolu du loolu du wax ji. loolu du wax ji macha allah na dem wuy ji na nam nangam nangam yow demal nga fexe li ñu la fal nga def ko. président nag loolu moo tax fi noonu nit ñi bañ ko. macha allah mais président mi ngi liggéey mais ñu ko jigéey man li may wax ni ñoom xam na ñu ko jigéey ñoom ñoo liggéeyul parce que kenn ku ne boo taxawee yaa ngi bëgg loolu président jàppee nga def ne wax ju ñaaw nit mooy tax yow président jàpp la non non Macky Sall jotee jàng jàng am na bag bi masata jotee am masata am na masata masata du masata de master waaw master am na master <laughs> ah. bi licence amee jot na am na ko ah. bi mu jàngee boo xam ne vraiment yàlla def na ko mu jeexal jàngam yëpp fa mu war a nekk ba yàlla na ko kat bi ma lay bi ma lay sàkk yow xamoon naa ne maa la jox nga nekk président mm-hmm. ba mu ñu ko joxee tamit la mu war a liggéey wax dëgg yàlla am na fi réew mi nekkoon am na fu mu ko yóbbu mm-hmm. te Macky Sall du nit ku ñàkk wërsëg mm-hmm. Macky Sall loo ko bañ bañ bañ xamal ni jig na Sénégal dëgg la loo ko bañ bañ jig na ah, Sénégal réalisé bari na non jig na Sénégal sa waay man dama fi nekk di waxantu indi na fi indi na fi euh, coupe d'Afrique euh, Abdoulaye Wade indi na fi ñu demaat fi coupe du monde mm. indi fi ay beneen coupe bi sa kër indi fi beneen coupe xale yu ndaw yi benn xale xale yu ndawaat yi ak yeneen ak yeneen indi na ko fi xam nga kon ah. ñun doyal lañ coupe kon dafa naa ne kooku nag li ci war a mm. dëgg dëgg mooy ñi nekk ak moom jàppale ko mm. mais tey réew mi fekk bàyyiwuñu benn ministre falu un an nekk milliardaire billahi duñ dem duñ dem parce que milliard du ay caaxaan benn ministre gaare sa buntu kër dix voitures say doom am passeport diplomate dem di ñëw te passeport diplomate dafa am yoon diplomate moo ko war a yor yaa beaucoup de expérience nga jàng xam lu bëri ñu jox la ko mais xale boo xam ne yaa ngi ne ii ii du judd ñu defal la diplomate nga dem yow sa compte banque bu ñu ko xeexee huit cent millions nekk ci bu ñu demee sa kër fekk ci un milliard mm-hmm. dëkk bi di souffrance mm-hmm. ñu ne dëkk bi méttiwul mm-hmm. fu ngeen romb yéen nekk seen oto yi clim tey ñii bu ñu añee duy rek nga nekk ci benn kër goo xam ne nga leer na am ni leeral yàlla ne bu ñu gëjee tal añ bul xam kañ la yow di xeeñ sa supp di xeeñ sa mis wi nga leen ci nguur gi nga nekk yor ay milliards nekk ministre barki démb un an nga nekk milliardaire nga ni dëkk mi ngi dox milliards yi foo ministre wala salaire président sax munoo ah, ah, non salaire président bu Sénégal moom bëri na xaalis mais salaire ministre député munoo ko nekk un an nekk milliardaire dëgg la nañ waxante dëgg kon réew mi demul xaalis bi a ko denc di sàcc di la wala mm. nañ waxante dëgg léegi nag loolu nag fekk jógewu ci mm. ñu teg mbir mi ci yoon réew mi du dem mm. man nag tudduma benn ministre mais ministre bu koy def xam nga sa bopp un an nga nekk milliardaire dix voitures nga gaare ko yor ay passeport diplomate sa doom bépp yëpp nga jox ko diplomate réew mi du dem réew mi ni muy demee mooy na ñëpp wàcc ci terrain bi eh. comme ni Pape Malick Ndour di def ñëw ci jafe-jafe askan ne leen hé jeunesse bi lan mooy seen problème nga ne liggéey mu jël ñëpp yóbbu leen foofu noonu tuddoon léegi li ma la wax affaire bi waaw ñoom ñëpp mu yóbbu leen waaw non mënu ko damay damay juum xam nga <laughs> kon def naa ni mhm. li ngay njëkk a mooy dossier Ousmane Sonko. Sweet Beauté Sweet Beauté dañ nañu kenn demoon Sweet Beauté ñenn ñuy wax billaay wallaay waxuma la Sweet Beauté waaye bu yàlla ne woon murit mbalaan mi duñ waxati a garaaw duñ waxati <laughs> jërëjëf ah. guy gi en tout cas kontaan nañu tey bof nañu émission boo xam ne man moom jox nga ma sama ndéwénal mhm. te xam naa ne sénégalais yi doon euh, seetaan jot nañ seen ndéwénal parce que reetaan nañu mais émission bu am solo lool lool lool mhm. lool la ñu def mhm. euh, ndax guy gi day wax mais ci biir da ngay jàpp ne sax dafay comédie mais dëgg non comédie yow man maara kon xaw moo ne man je suis pas de comédie man même ba sama làmb maara Mara ba ci sama làmb je suis pas du coubé yi. moi je suis naturel. parce que li ma gëm la wax. tu es trop naturel. tu es tu es tu es jeune xale laa sama tollaay laay wax benn bi mooy nit bu dee wax da war a déglu fi may waxee fi may waxee mooy man. waxuñu mm. waxi politique. mais réew mi tey ñi Macky Sall jox réew mi. Mm. ñooñu ñoo waroon a wàcc ci askan wi. Mm. maa ngi gis Kaliphone keroog xam nga Kaliphone ñëpp xam nañu Macky Sall. Kaliphone Sall mais dafa aalu te li wax dëgg la na. président Macky ñi nga say ministres nañu wàcc ci terrain bi am na beneen gel boo xam tamit Euh, booy bi gel bi dëkk Fouta. Fatou Ndiaye Mata moom it déglu naa ko. Mm-hmm. mu ni président Macky Sall sa ministre yi du ñu buur nañuy wa mais dëgg la ñoom ñi dem ba seen biir xam ne loolu day wàcc. Mm-hmm. dañuy wàcc ci nit ñi nu ñu mel askan wi leen ko def. Mm-hmm. bu ñu bëggee falu mën nañoo fanaan sa buntu kër. dëgg la buñ faloo bu la wooyee doo jot. dëgg la benn ministre laa ci xam ne boo ko wooyee da ko jot bi nii benn numéro la yor muy Matar Ba. benn numéro am billaahi boo ko wooyee da nga ko bi mu amee problème ci guddi ma woo Matar ci guddi numéro am laa ko woowee jot ko te dafa def loo xam dafa tax ma gën ko jàppaat. Hmm. dama ko woo mu ni ma loolu munu ci am problème loolu sax jëloon mooy woo na dem ñu laaj ko deful du moom dañ koy bàyyi. ba pare lu ci mën am nag ma woowaat kon nam ngeen ko ci sport bi non Matar ba moo tax keroog ñu naan ma Matar nañ ko indiwaat ma a ko ñu yàq lamb pare ba ko indiwaat du gaaw defarwaat jërëjëf guy gi en mhm. message yu fort yu solo dañuy tàggatoog moom mhm. eh, xam naa ne bii du doon suñu mujjantalu jotaay émission bu amoon solo lool li fi mhm. génn ci waxtaan bari na waaye laata ñuy tàggoo une juste une dernière question rek guy gi eh, bëgg naa nga wax ma tey lamb ana kan nga jàpp ne war na laa mën a ama seen ama seen ama seen Eumeu Sène man kay saa bala nga wax Eumeu Sène rek Eumeu dalaa daan bërki démb Boy Niang waaw non xamal Boy daan na ma mais ba tey level boobu bokkul Boy Niang am na leen lu muy seet mm. Eumeu Sène tamit dafa tolloo fi ci wàcc pour may xale yi sens grand corps de parce que ka kam kama daan man kooku tey dafa toog ci yéeg bala Gaye may ko sens muy grand contre petit. kon Eumeu tamit na ma geesu. Mm-hmm. man saa Thiès wala Tapha Tine tey ñun ñoo fi nekk. mais am nga ay revanche yoo war a joxe. parce que am naa Tapha Tine revanche. am na Zarko no non. non yow ak Zarko parce que Zarko temps yi teg la kii de. non non non teg na la ASD non man dama bëgg ñu ko wax même boo bëggee bëri tamit nga teg ko ci yoon. parce que man wax dëgg yàlla. parce que gis nañ souvent léegi daf lay daf lay. waaw non non man moom wax dëgg yàlla. Hmm. bëgguma benn benn lante mais dama bëgg ba wax ci nit ki rek nga respecté ko xam nga. bul bul dugg ci vie privée sop ay xam nga di wax yenn wax yoo xam ni du tax moom tey mu naw loolu la wala tey loolu dina tax mu bëri yow. wala tey loolu dina tax mu yokk dara sa dayoo loolu dalay wàññi parce que nit bu waxee lu rafet jox la waxaata lu rafet jox la am na loo xam ne nag làmb la waxtaan affaire bu ma jëlee guy bu ma jëlee tàppet la dinaa ko dóor nangam nangam waaye am na loo guy guy des gis boppam tul wax dara mais boo waxee mu la benn yoon waxaat mu tontu xool ba xam yow sama nawle nga soo ma tontu la boo fekkee doo sama nawle soo waxee ma la mm-hmm. mais nag man noonu laay dundee làmb nag mi ngi sunu kanam xawma luy am ëllëg mais comme li ma la wax am na loo xam ne moom nit ki waru ko wax doomu ñun suñu biir ñun suñu biir mbëri ñoo ne ñoo ñi gën a nekk ñoo njëkk nekk imini làmb ba pare mm. ñun suñu biir da ngay gis benn mbër boo xam ne mbër da koy yàq loo xam ne wala mu yàkkamti sax mu am jafe-jafe ba mu toog di wax kon def naa ñoo njëkk suñu bopp suñu bopp imini te loolu man góoma loolu man li ma gëm mooy nit ki nga yéene ko jàmm nga am jàmm yàlla def na li ñu def ba pare guy li muy am yàlla def na ko ba pare jàpp na jàmm làmb war na leen boolewaat non làmb ba nii sax làmb boole nañu mais dama ni hmm. dafa am loo xam ne dafa rafetul sa diggante yow ak adversaire bi xam nga foofu sax bëgg ma ñu def ci point quoi defal teel rek dañuy tàggatoo waaw ah, jeexal nañu bëggoon naa ñu wax ci affaire Mbaye Kouthia nag parce que Mbaye temps yee génn ko waxee kooku boo ko waxatee di nga ko may lum kii mais xam nga nit buy wax ci yow te xamu la mhm. fekk muy wax ak 95 nga woo ko mu ñëw tey jégglu mhm. jekki-jekki demaat xam nga di jël ko mu bëgg buzz ma woo ko ci biir bi mu def émission pare mënu ma dimbali ma rek damaa bëgg buzz bàyyil noonu rek moom mbay moo wax loolu barke alxuraanu karim ak waxtu yàlla donc li mu lay waxal du lu mu la xamal waxtu yàlla wi nii bu fekkee waxuma damaa bëgg buzz yàlla na accidenté sama njaboot yàlla bu fekk suma njariñ ci téléphone bi nii hmm. Zeyna Bamba du ma ko fenal mi ngi may dégg bu Zeyna Bamba Ndiaye Seneweb heureusement damaa ci téléphone bi may libre Zeyna Bamba mi ngi may dégg mi ngi may dégg mu ne moom dégg naa kay ma koy wax mu ne ma damaa bëgg buzz ma ne ko man ngay naan dangaa bëgg buzz bay dugg di wax loo xamul mënu ma dimbali ma rek dinaa demaat dem dinaa demaat ci site yëpp naa ko defal dinaa tudd ay masatak ay aal ma ne ko hé nekkal nit waxuma loolu yow lan nga ma yebee ba toog site yi di la jëlaat nga ñëw jéggalu ba pare nga dem naan mel ni man maa la forcé nga ñëw suma kër te yow yaa ñëw suma kër ak 95 di jéggalu si jéggalu bi nekk woon loo ko forcé mo déedéet xaw sax mi ngi ñëw day jékki-jékki gis ma ma ñëw ma wax ci wax bu rafet na ko waxal mu wax ba mu dem mu génnaat mel ni man dama ko ko ñëwal loolu rafetul mais jéggal ko mbay sa rakk la non dafa réew te bu dee na man bu dee loolu moom sax du ma ci mais moom xam na man xam naa 95 xam na. jërëjëf xam nga ku muy laalaat mais moom moom saa yi. <laughs> da doon guy gi. nañ bàyyi ba la ñuy tàggatoo guy gi kontaan nañu ci dalal bi ñu dalaloon tey ci hmm. bisu tabaski gi ñu doon jox suñu ay téléspectateurs seen ndéwénal di leen ndéwénati hmm. waat encore une fois hmm. di ñaan suñu borom gën a def jàmm ci réew mi eh, eh, yi fi jot a jaar yëpp yàlla na fi yàlla waxuma sax yàlla bu mu fi gëj mais yàlla bu mu fi amati la ñuy wax yàlla na yàlla gën a def jàmm ci réew mi guy gi eh, lan vraiment comme ma li ma wax rek seen télé bu ma sincère mais bëgg di développé su ma wax da nga xam ne yéen laay waxee su ma télé la am na ay télé yoo xam tamit tamit su ma la mais comme ku nekk sama télé rek bu ma ñëw li ma xam ci dinaa ko wax mm-hmm. Mm-hmm. parce que loolu mooy àdduna parce que mënuñu dem sans yéen mm-hmm. yéen mënul dem sans ñun parce que ñun dañoo bokk société bi quoi ah, di ñaanal ñëpp jàmm bu fekkee daal lépp lu ñu fi wax muy côté opposition côté pouvoir tey lu ñu wax rek bu fekkee lu la suñu borom la bu fekkee lu dëng jaam bi moo xeebu rek matul waaw matul loolu daal la ñuy la ñuy yéege quoi di ñaanal ñëpp jàmmoo nuyu waa suma papa ak sama yaay bu baax nuyu sama yaay Wara Sarr suma grand frère Nas Modou suma grand frère nuyu sama soxna bi suma rakk Ndayram ak Aysa nuyu sama jabaru grand bi Absa euh, Absa ak Mariama xam nga ñi nekk ci gàlla bi euh, di nuyu daal vraiment ñi nekk ci kër gi yëpp bàyyiwuñu kenn sama jarbaar yi ñoom nooy ak ñoom mbenn ñoom jee ñu nekk ci koñ bi bàyyiwuñu kenn parce que mm-hmm. tamit wax dëgg yàlla ñun famille lañu mm-hmm. boo tuddee kii war ngaa tudd ñëpp mais xel day fat des mm-hmm. nuy waa koñ bi ñu fi nekk ñoom bolo pamdooy eh, ñoom xam nga ñoom ñoom ñoom ñoom Paulo Lamine Niass xam nga sama dëkkandoo waa kër eh, maam maam seen Seex Ndigal yi maire Mbaye ñu la nuyu bu baax vraiment ñi ñu baax la ñoom bas nit la ñoo xam ni buñ génn sax xam ne ñi leen leen a yar loolu mooy àdduna quoi waaw ñi fi nekk ñoom am xam nga ñoom Aliou xam nga képp kuy seetaan daal télé bi képp ku ñu doon seetaan ñu ngi lay bu baax di la jox sa wàcce waay di sama grand frère Djibi Sile depuis Paris mhm. Papa Seri Awa Papa Sine Saliou Papa Sine Saliou Papa Sine Fallou ñu ngi lay nuyu bu baax a baax mhm. képp ku ñu seetaan daal mhm. à travers foo mën da nekk ci àdduna bi ñu lay fekk foofu jox parce que man man awma noonu man ñëpp ma bëgg man léeg-léeg nga mere ma sax yow mi mbër mi su ma ñuy stade da nga xam ne yow rek maa bëgg dëgg la parce que loolu mooy àdduna kaf ree moo fi nekk mbalagante bu fu jotee nga def ko après nga nekk ci leneen quoi mm-hmm. waaw di jégaluwaat ci kàddu yi bu baax a baax nuyu suma suma suma grand frère sama sama waaye dare nuyu tamit sama grand sama xarit Elton mm-hmm. Elton démb un million la ma yónnee ndeysaan fils Elton yónni waatal un million maa lay maa lay nuyu bu baax non sama xarit la. dem un million la mu yéen. macha allah muy bu baax nit la ko xam ni. Mm-hmm. sëñ Cheikh ni mel noonu. yéen da jàppale rawatina ci événement yu mel nii. parce que day am ñu yaakaar ci yéen. non événement yi mel ni waxuma la jàppale rek mais. Mm-hmm. boo gisoon xare ñi yeew wala ñi ñëw ci ñun yaakaar mm-hmm. mais yaakaaram fort te yàlla bu yàlla tas yaakaar yàlla mënu na ko yàlla du nuyu sa cameraman yi nga àndal Kébé Kébé Euh, Omar kii Omar kii bu bees format kii ni ñu koy waxee niveau niveau stagiaire stagiaire ah. Omar niveau stagiaire quoi maa ngi koy gis kebe naan ko jubanti li yëg jubant ma ne ko billaahi Omar boo yàqee sama émission bi nga xam ne billaahi doo doon nekk stagiaire kon may mën a nduur billaahi boo demee dina la dàq wala bu ma ñëwee kenn dafa def émission bu soobee yàlla yow sa émission kenn du ko yàq non kontaan naa nuyu nuyu nuyu nag seen directrice waaw suñu directrice may mën a nduur fay waaw may mën a nduur non may mën a nduur ñaari baat laa lay dénk hmm. euh, li la yàlla def. Mhm. ñetti baat sax. Mhm. li yàlla def yaag sañ moroom a nekk noonu ci télé. Mhm. ngay liggéeyal nit ñu di la fay. nga dem bay liggéey yow di fay ay emploi pour ñu liggéeyal la. kon bu fekkee tey sa xel dem na ci loolu. ngay liggéey ñëpp kontaan si say liggéey soo toogee ñaari nit bu ñu waxee ci yow boo leen tontoo gëmoo yàlla yow. dëgg boo leen tontoo yow gëmoo yàlla parce que Seydina Mohamed lu amul woon Omar amu ko Ousmane amu ko Ababacar amu ko yonent yàlla amu ko. yow nga bëgg ko am ah yonent yàlla Moussa da ba mu ne yàlla damaa bëgg mucc ci làmmiñu nit ñi yàlla Moussa ko yàlla ne ko xanaa man ma awma loolu Moussa yow ma ngi am yow nga bëgg a mucc ci làmmiñu nit ñi man mëndul liggéeyal nous sommes nous dans on a avenir d'avance avenir mi ci kanam. léegi émission bi dégg nga <laughs> merci beaucoup Guy gi bu mhm. baax ci ni ñu dalale tey ci këram mhm. yaatal ñu ci bisu julli gi mhm. waxtaan ak ñun waxtaan bu ama am solo jaajafal kebe mi ñu àndaloon ci caméra yi jaajafal bu baax a baax Omar jaajëfal Papis mbay ci production bi bégge waat may mën a ndur fay bu baax a baax jigéen ju mën góor ji nga xamante ni kenn du moom jàmbaar la li Guy gi wax rek euh, ku boot bukki xaj mbaw la te ki lay dàq te mënu jot lu mu jot dala koy sànni loolu la àdduna bi nekk ci kanam sax lay def pip mus ñoo gis oto bi nekk ci ginnaaw nga naan ko non non pi pi pi lu nekk do soo ko jotul rek da koy mbëkk tell oh, soo ko mbëkkee ko fasaate ko amis téléspectateurs portez-vous bien ñu joxaat leen yeneen dig daje incha allah rabbi d'ici là portez-vous bien et restez scotchés euh, sur les de la 7TV dinañ leen gunge waat ci julli gi tabaski bi moom tubaarkàlla nii ñu leen xëyee gunge wan leen julli it yi wan leen euh, journée bi ni mu demee dem ci kër ndaanaan yi guddi gi noonu lay demee ci ay plateau ak ndaanaan yi itam lendemain tabaski sur lendemain tabaski duñu leen bàyyi daañu leen jox seen ndéwénal ba mu mat sëkk incha allah rabbi la 7TV la télé qui nous ressemble et nous rassemble ñu dajawaat ci yeneen jotaay jaa ngeen jëf